ñu ci ànd saay su ne ak Amina Diop les informations santé la ñuy euh, waxtaanee jeudi bu jot Amina ñu bàyyi la ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy mbokku téléspectateur yi. alors may nuyuwaat mbokku téléspectateur Walfadjri surtout nga xamante ñoom ñoo safoo seetaan la rubrique santé alors Zeyna comme ni ma la ko waxee woon ci sommaire bi dañuy njëkkee li nga xamante ni moom mooy cas infantile bi am euh, région de Dakar parce que dañoo gis ni que dafa nekk en hausse parce que de 32 dans cinq dernières années yi dafa yokk dem ba 40 pour 1000 pour cent te mu nekk lu nga xamante ne nii mooy lu doy waar nekk ci Dakar dans la région du ci jàpp Pikine ak Guédiawaye ñu gis ne ni cas infantile yi dafa bëri donc li ñu daay def mooy xool des élément boobu noonu te ñëwaat ci plateau bi ci lu ñeel xale yi nga xam ne ni dañuy juddu daal di faatu ca Pikine ak ca waay jot na ay euh, études yoo xam ne ni def nañu ko fa études yi nag jóge ci UNICEF ak ANDES euh, la ñu xamle mooy daal ci junni boo jël sa ak ñaar faatu nañu ci ci juróomi at yu ñu weesu kon dafa gën a yokku ndax junni boo jël ñeent fukk ci ay xale daal nañu si ñàkk seen bakken loolu nag doon ab boo xam ne jël nañu ko ci juróom benn weer yi loolu nag day échantillon yoo xam te ni jël nañu ko xool ndax ay xale ci juróom benn weer la ñuy toll jàpp juróom fukk ak juróom-ñeenti weer ci kër yi nga xam ne nag fa la ñu ko xoolee kër yi nga xam ne nag fa la nemmeeku ne am na fa toll na ci juróom junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk enquête ba ñu gis sa géejawaay wane na ne kon ci junni boo jël ñeent fukk ak ñetti ay xale daal dinañu faatu ca diwaanu Tëngéej ak Ndakaaru étude yi nag la mu xamle moo ne daal mbiru xale yu juddu daal di faatu xaw naa néew tuuti bu ñu ko comparé ak yeneen yi dëkk yi ak bu ñu ko comparé ak yeneen yi dëkk yi ci banlieue bi ndax boo jël fanweer ak juróom-ñaari ci ay xale daal nañ ca faatu ci ndakaaru it junni boo jël fanweer ak juróom benni doomu aadama faatu nañu ci Zeyna gis nga élément bi xam ne moom la ñu Fatimata Sey defar par rapport à la mortalité infantile Zeyna ñu gis que ne mi ngi gën a bëri parce que je pense que xam naa xale yi

jàpp ci banlieue bi la ëppee lu ci mel euh, que tam dinañu faral di def euh, visite prénatale yi parce que tamit xam nga banlieue bi en général par exemple de kii demeewul noonu moyens je pense que ñoom je pense que tal nañ leneen lu dul xam na ni boo ëmbee au moins la moindre des choses que nga dem am carnet nga dem hôpital nga xool sa bop xool dem def échographie xool fan nga toll ban stade mais est que ñoom ils sont assez truc pour mën a def loolu donc mu nekk benn problème bu nga xamante tamit ça se pose. Mhm. Mhm. d'accord ñu jàll njaga amoo ci appréciation. Eh, wax am solo c'est-à-dire euh, que naa reportage bi mais kenn waxul mag ay xale rek la ñuy wax euh, nga xool ni kon un li koy njëkk andi Amina bokk na ci ëmb ba pare di ko nëbb mooy li ngay wax ni est que dañuy def ay visite mhm. parce que tey jii nii boo xoolee nga ëmb di nëbb seen waa kër ni dafa dangaa ëmb da dem a dem ba am 6 mois di soog xam ni eh, nu mu tëddee sa kër soo a xam ni da ngaa ëmb visite yi sa war du ko def ñaare bi moom mooy kattan dafa bokk ci am doom. kattan dafa bokk ci am doom su ma ko waxee xel yi dañuy wax ni foo foo fas dul daw am am xel a fay daw kattan dafa bokk ci am doom te xale yi léegi ku ci ëmb ko ba ba ñu ci bare bare bare bare bëri amuñu yenn kattan yi nga xam ni war nañ koo mën war nañ koo war maanaam war na leen a mën a accompagner ci kon xale bi di judd rek coono gi muy daj maanaam bébé bi bi muy juddu coono gi muy daj bu bu ko raw la la la ndey ji daj je pense que tamit euh, loolu tamit dina tax tamit euh, xale yi di juddu di dee parce que yaa ngi war a toppatoo bébé bi avant muy juddu ba bi muy juddu nga toppatoo ko c'est-à-dire que premier jour bi ñu koy toppatoo mooy bis bi muy judd parce que da ëmb ci àll bi di ko nëbb loolu tamit vraiment dina andi tamit euh, di faatu lu bare bare bare mais nga xamante ni kii ëmb na ñu yóbbu ko defal ko ay visite en plus li nga wax sànq dafa am importance par exemple boo ëmbee li war ci yow non seulement da war a am kàttan mais tu dois bien manger mais est-ce que tamit ñu ngi lekk li nga xamante ni moom mooy jaar yoon par rapport ak contribution par rapport à ça. Mm-hmm. lay doon mais Amina lii euh, Ndiaga wax itam dañ koy faral di gis des fois nga gis ñi nga xamante ne dañuy euh, def li nga xam ne moom mooy infanticide. Mm-hmm. jur seen doom rey ko. mais da ngay dégg parents yi la naan xaw ma woon nii. non li gën a yéeme mooy xale yi dañuy am dañuy ëmb. Mm-hmm. dañuy dem seen ndey yi. ñu leen may leen ma jënd coton. comprendre nga pour dàq sip. kon. saa à bu dee chaque weer sa yaay jox la nga jënd coton mm-hmm. du xalaat mm-hmm. ni da ni ëmb ba lay jox xaalis ne la demal nga demal nga jëndi carnet wala kan moo la ëmbal wala nangam cest nëbbu ji ñuy nëbbu gis nga ndigal foofu la amee solo ndigal ndigal da am ndigal sa soxna suba teel jot Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane bu mu ci mën a doon ci ñaari Cheikh Tidiane nekk si rési yor sata la génn ci néegam bàyyi jabaram ci ëtt bi te du nëbbatu yow mi amul ndigal sa soxna ci si ab gel rek da xool ni bala da ngay génn di làqatoog di nàngam ëmb yi tamit noonu la da ngay gis ni ki ëmb te am te am ndigalu faratas yàlla ak sunna Muhammad mm-hmm. premier jour bi rek ñëpp da xam ne dafa ëmb da koy wane mm-hmm. mais ki amul ndigal ba ëmb mm-hmm. c'est-à-dire que da koy nëbba nëbba nëbba nëbba ba koroog muy am doom foofu la ndigal gën a amee solo daal te loolu tam dafay faral di da faral di andi euh, xale yi faatu faatu bu bu fekkee euh, am nga loo mën a sànni waaw euh, parce que thème bi ngeen di waxtaanee aussi dafa am solo surtout mu jëm ci loo xamante ni en fait euh, dafa jëm ci wàllu xale yi. Mhm. Euh, maanaam day yóbbu rek suma xalaat ak suma xel ci li nga xam ne tey gouvernement bu Sénégal ñu ngi koy mébét. maanaam mooy euh, li nga xam ne ëmb yi nga xam ne dañ leen di dindi euh, mm-hmm. ci ci hôpital yi pour que ñu ñu libéraliser ko mm-hmm. euh, ak li nga xam ne tey yéen yéen a ngi koy gis ci mbedd mi mm-hmm. parce que loolu su jógee aussi dañuy jàpp ne lu mel ni kilifa diine yi dafa mel ni dañuy xaw a ŋàññi wax jooju te mu mel ni que aussi gouvernement bi yu mel ni daal la gis bëgg ci indi ab safara Euh, kon daal ma jàpp ne wax ji foofu la ñu xool ndax daal en tout cas lan voilà lan mooy daal euh, voilà bu ñu waxee avortement médicalisé ñoom ñoom c'est par rapport ni nga par exemple Zeyna nga dëkk ak sa benn nijaay wala sa benn ton sa benn kii mu mu violé la comprendre nga ñoom gouvernement par rapport ak loolu lañ wax mais waxuñu par exemple nga dem foofu ci àll ba nga ñëw nga ne ah man ka damaa bëgg avorter ñu médicalisé ko ñoom gouvernement bi ñoom lu ñu wax mooy par exemple cas boo demee fooy ci àll ba ñëw naan dama bëgg yàq un bébé loolu c'est pas na nga ko andi dégg nga ah. andiwaat ko andiwaat ko parce que am nañ si xalaat yu bëree bëri yoo xam ne. ci avortement médical war nañ ko seet. leeral que lu euh, euh, mu tëddee. mu violé la tey mhm. loolu pilule de lendemain mën nga koo mën nga koo naan jarul avortement médicalisé. Mhm. avortement médicalisé ci 3 mois nga ko mën a def te nee na ñoom médecin yi nee nañu 3 mois ku ci yàq ëmb mu dee kon war nañ see waxtaan waxtaan bu am solo. d'accord donc prochaine fois xam naa incha allah benn expert mu expliquer ñu par rapport ak euh, li nga xamante ne Ndiaga proposé nañ ko comme tel li ñu def mooy dem ci li nga xamante ni moom mooy médecin yi nga xam ne dañoo jox ñu élément boobu moom la Birama def waaw la fukk la ak la fukk ak benn alxames ak ajjuma mooy suba ak ginnaaw suba lañ nar a sunu loxo. décembre bi nag dañuy def benn do ñaxtu bu mag. boobu nag ci Dakar lañ koy def. lii moo ruse ci seen jano bi ñu doon amal ak taskatu xibaar yi ngir nguur gi mën a sàmmoon sàmmonteeg ak l'accord yi nga xamante ne jotoon nañ ko signé ak ñoom médecins yi ci seen wàllu bopp dafa mel ni ñoom ñoo gën a wopp seeni malade. grève wootu wàllu la dañuy woote wàllu pour que ñu lijjanti mbir yi xam nañ stratégie gën a metti xam nañ ne doxalinu grève yi gën a metti waaye bëgguñu ko def li am nag mooy nguur gi. li mu waroon yëngatoo yëngatoo ko te loolu bu continuer ci doxalin boobu fa ñu jëm narul neex. waykër docteur yi ci seen wàllu bopp ñoo ngi naqarlu bu baax taxawaay gi nga xamante ne def nañ ko ci haut conseil des collectivité territorial ñu dem ba di ko méngale ab yàqub xaalis. décentralisation nekk ci doyen Sidiya Ndiaye yéen ñëpp xam ngeen ko bi ñu yëgatee acte trois de la décentralisation moom waxoon na leen man magum waxoon naa la ko moom waxoon na leen problème yi ñu war a am. mais li ñu gis mooy Sénégal am na euh, au conseil am na kuréel boo xam ne au conseil économique et social conseil économique social et environnemental lañ ko tuddee te soxna si Aminata Tall diriger ko am na tamit benn kuréel boo xam ne monsieur Djiboka moo koy diriger tamit dialogue la même ci tur bi sax territorial dialogue maanaam moo tax dañoo xaw a jaaxle booy naan euh, ndàmpaay yi aqu liggéeykat yi mënu ma ko fay ndax ñàkk xaalis doo ñëw jël sa xaalis di ko dugal ci loo xam ne am nga kenn ku la ko war a defal ba pare. kuréel gii di 2SAU moo ngi naqarlu bu baax coupé gi nga xamante ne ñoo ngi koy def ci jëmale ko ci wàllu ndox mi ak courant bi ci yenn kër docteur yi ñu nekk. parce que bu ñu bërëbu fajukaay boo xoolee bañ koy coupé. ñëwee ci état état naan la mairie la boo ñëwee ci mairie ñu naan la ñun àndanuñ ko loolu dafa doy waar sànq suñu camarade bi wax nañ ko boo demee di ubbi biiram euh, deret bi ak lépp di dox nit ki ñu war ko jàppale ci yi te loolu lépp ay électricité la ak ay appareil bu courant bi coupé loolu nan ngay moo tax nag état bi dafa war a gën a sérieux wax nañ ne état bi amul ressource bien que sax gis nañ ne Mumbai bi bari na fi waaye am na yoo xam ne kenn war ko seetaan coupé courant coupé ndox ci bërëbu fajukaay loolu xel nangu ko ñi fas yéene grève nag ñoom lu ñuy déplorer mooy euh, dañu signé woon benn protocole deux protocoles bu nga xamante ne en 2010 ak 2014 ba léegi euh, actuel ministre de budget bi Viviane Bambassi moom respecté li nga xamante ni moom mooy accord ñoom ñu a ñaawlu tamit mooy woowu leen ñu toog ñu waxtaan xool lan moo faisable ak lan moo faisable buñ jigee ci loolu tamit moom horaire yi nga xamante ni moom la fixé woon par rapport ak 51 euh, 000 francs par hôpital ak 25 000 par district moom loolu nee na respecté wuñu engagement yooyu noonu nee tamit intégration des élèves si école euh, ENDS bu nekk fii nii ci avenue Cheikh Anta Diop ñoom dañ la war a intégré foofu noonu pour ñu mën a dem jàng li nga xamante ni moom mooy médecine mais booba tey gouvernement waxuñu si dara donc loolu moo tax ñu def ñu ne nag dañuy grève pour euh, régler leen li nga xamante ni moom la ñuy ñaxtu mhm. en tout cas euh, tout à l'heure mi ngi expliqué ci biir ay waxam ni coupure ndox yi ak coupure courant loolu itam yaakaar naa ni lu ko gën a primordial mhm. amul ndax euh, mbirum opération ak yeneen yaakaar naa ni euh, bu fa ndox amul coono mhm. lay lay dina am euh, courant moom bu fa amul yaakaar naa nit ki moom fa muy mujje ma détaillé donc c'est des choses yi nga xam ne le gouvernement vraiment waruñu di di di di di ko fowee ci ci li ma yaakaar fowee ci ndax dundu doomu aadama moo moo boo fàttalee semaine fa passée defoon naa ci benn euh, élément ñu doon wax ni que ni hôpital euh, Le Dantec dafa problème eau ak électricité donc bu ñu ñëwaatee tey encore ñoom tam ñuy grève loolu mu nekk benn affaire bu doy waar te war nañ xam ni que ni nguur bi lu lu ci mel ni euh, santé ak éducation yaakaar naa ni moom leen wax a gën a priorité def en priorité ñu yi nga xamante ni moom mooy problème yi am ci wàllu santé bi ak li nga xamante ni moom mooy éducation bi jaga cest à a leen jàppale ne la mu des santé ak éducation ñaar yooyu daal des ginnaaw ci réew nañu toog waxtaan damay wax ni eh, fa ñuy mujjee rek mooy ñu toogaat waxtaan nañ ko njëkkee daal moo gën waaw jógee ci li nga xamante ni moom mooy euh, médecins yi nga xamante dañooy grève dañuy jàll ci nga xamante ni ñoom ñooy pharmaciens yi Zeyna parce que gis nañ depuis cinq dernières années yi dañ leen def ay cas de cambriole ay meurtre donc li ñu daay def xool élément boobu nga xam ne moom la ñu jàpp defaloon si atum 2005 euh, ba tey lu ëpp juróom fukk ci seen ay euh, pharmacie ay defkati teef rek dañ fay amal ay càcc yu metti mu mun leen jural yàqu-yàqu yu bari ci seen wàllum liggéey mbir mi lee ñu ko xam le ñooy ordre national des pharmaciens du Sénégal bërki biig muy dimanche sam ci guddi dimanche guddi samedi jëm dimanche pharmacie bu ñuy wax pharmacie Yelitaare nekk njum ci gannaaw Podor ay samba booy ñoo fa dugg def fa lu ñaaw fekk ñi nga xam ne dañoo fanaan guddi muy garde bi ñuy bi ngeen dégg ñuy wax pour que population ba dëkk foofu mun a am garab ci waxtu mu nekk ci biir guddi googu ñu ñëw fekk leen fa ñuy ñaar ñu fa ne woon rey leen rey bu ñaaw. sonn lool jaxli si bile mbir loolu moo tax yile pharmacien ñoom ñu ngi sàkku si état bu Sénégal mu càmbarlaat bu baax seen. min toj réseau yi nga xam ne dañuy jaay garab te amul benn réglementation di laaj ne ñu yokk ñu suñu kaaraange pour ñu mën a continuer suñu liggéey di ñaan di laaj tamit l'État muy gouvernement bi mu taxaw taxawaayu responsabilité biñ ko biñ koy xaar gis ngeen ko kër Serigne baa ngi fi baa ngi fi ak dépôt yi nga xam ne kenn kenn pharmacien newu fi xamuñ dara ci garab marché caaro yang fi ak yeneen i marché ak yeneen ak yeneen ak yeneen ngir nguuri Sénégal dégg leen wala sax askan Sénégal gën leen bàyyi xel yile pharmacien jël leen ay décision yu ferm si bile mbir ñoom sax fas yéene neen amal ab sitting fukk fan ak benn si weeru novembre ci buntu ministère bu yor wàllum wérgu yaram bi. garde bi ñu doon def muy guddi gi ñuy ubbi pour bépp doomu aadama bu soxlaa garab mun koo am dakkal nañ ko bés bi ni ki tey ba ba ñuy waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñooñu mën a garantie suñu sécurité ñi ngi woo pharmacien yi yu dakaar laay njëkk waxal ñi dëkk région Dakar ajjuma bii di ñëw di fukki fan ak benn ci weeru novembre dinañ taxaw ci taxawaayu ñaxtu ci kanamu suñu ministère mooy ministère de la santé et de l'action sociale boole ko nag ak ñi nga xam ne ñoom la ñu bokk suñu pharmacie bi liggéey muy suñu employé yi sol ñun ñëpp ñu sol suñu blouse yi nga xam ne moom la liggéeyee ci suñu pharmacie alors Zeyna gis nga élément boobu noonu seetu nag ñu ñëw rey fa ay nit mu nekk moo tax ñoom nag ñun yi dañ def benn sitting boo xamante ne novembre fële ci buntu ministère parce que gis nañ ni nee nañ ni ministère de la santé et de l' action sociale fulaaluñ leen par rapport à la contre ñi nga xamante ne ubbi seen genre boutique di jaay ay garab te ils sont pas fait des études en pharmacie donc mu nekk lu doy waar donc ñoom tamit neneen dineen dem grève pour ministre bi gën leen fulaal ba pare au delà de 23 amatuñu garde pharmacie au delà de 23 heures léegi ubbi kuy jënd garab donc na jënd à l'avance ba ñu am satisfaction pour mën a dooraat li nga xamante moom mooy garde bi. kuy jënd garab na ko jënd à l'avance a dal Euh, mu ngi mel ni médecin yi ne woon 18h euh, dañuy arrêté faj ku bëgg faj danga ñëw avant 18h léegi boo feebaree après après 18h tu fais comment da sa kër ba leneen fekk la ci

doo am ñoo ñuy nekk de garde ba fajar ba ba suba teel. même bu ñu nekkee euh, may gis ñu nekk garde pour la plupart de temps mooy kaaf euh, bu ndaw boobu ñuy def. voilà booy jënd nga du ko génne. maintenant loolu eh, amatul gis nga cas bi amoon temps yi passé récemment meurtre ba am ci meurtre ak yooyu moo tax nag. ah ci tijji gaaf boobu lañ ñamee meurtre. non <laughs> ci ubbi est-ce que gënul woon ñoom itam bien vrai que ku ci nekk boo jugee pour grève c'est parce que surtout lu nekk lu nekk ci wàllu santé boo jugee pour grève. Mhm. c'est parce que am nga lu lu lu lu la metti mhm. à un certain point. maintenant est-ce que gënul woon ñoom itam lu ñu am lu leen metti am lu leen metti ñu xoolaat seen formule boobu noonu peut-être mën nañ def grève ci beneen façon.

xaalis boobu noonu fan lañ koy jëlaatee dañuy mujj dem obligé di lépp wala des fois dañuy gis pharmacie boo xam ne day tëj parce que ils ont pas les moyens pour payer li nga moom lañ affaire bu comme stratégie pour mën a xeex donc peut-être le 11 bu ñu demee def seen sitting ministre dina leen woo ñu waxtaan xool ban solution lañ mën a am jàll ci beneen dañuy daal di jeexalee li nga xamante ni mooy chicha parce que chicha nekk na benn cigarette bu nga xam ne genre xaw xale yi jël nañ ko de 16 jëm kaw dañuy utiliser li nga xamante ni moom mooy chicha donc lu ñuy daay def xool reportage bu nga xamante ni moom la élément bu nga xam ne moom la ñu Fatoumata Seye defal par rapport ak chicha bi chicha doon loo xam ne nag jamono ji bëri na ay nit yoo xam ne ni ñu ngi koy faral daal di tuux ci téeméer boo jël ñaar fukk ak juróom ya dañuy utiliser li nga xamante ni moom mooy chicha nekk loo xam ne nag dañu koy mélanger ay essence muy xeeñ fruit ak lu ni mel loolee sax yóbbee ñu bëri yaakaar ne daal boobu lépp xeetu cigarette du lu mën a yàq dara ci wérgu yaram waaye nag ñu ngi juum lii di saxaaru chicha googee mën na la rey ndax da indil feebar lu ki mel ni ay cancer monog chicha bi nga xamante ni nag moom moo am ci loolee di chicha bi moom moo gën a dangereux foofu li nga xam ne moom mooy cigarette di wane ne rek kon chicha gii daal doon na loo xamante ni di ko faral di jëfandikoo mën na laa faat wala mu indil la ay gàllankoor ci sa wérgu yaram ndax dañu koy tëkkaale rek ak. alors Zeyna gis nga élément boobu noonu par rapport ak chicha bi chicha nekk benn genre fumée benn genre cigarette bu nga xamante ni moom la ñu utiliser di ko toog sunu mbokk jeunes de 16 à.

Diouf ak Sulaar tamit Zeyna mën na indi chicha donc chicha daal euh, comme euh, na fi defoon na si dossier xam naa dinañ ko bàyyi mu gën si développé. Euh, benn benn tafu cigarette ça ça équivaut à 60 bouffées de chicha benn nga xëcc benn cigarette 60 chicha lay lay mooy équivalent kon loolu moo lay wan ni. baax non benn benn benn chicha benn euh, bu wu chicha ça équivaut à soixante tirs de cigarette selon des des études vérifiées par la science kon moo lay wan ni loolu baaxul et puis ñi nga xamante ni ñoom ñoo koy def le drame mooy xamuñu yan inconvénient moom moo nekk ci chicha bi ma riirandoo la mouvance la kenn xamul euh, frime la kenn kenn xamul c'est frère yàgg chicha jamono gii nga xamante ne nangam. ku tuxul chicha tuxoo dara. day jaaxal kon man xam kon moom mu may won ni da ngaa yàgg. Mhm. maanaam chicha mhm. boo boo inee nga koy def te xamuñu ne ndey. te te te li ci gën a graaw mooy ñi nga xamante ne chicha selon toujours des les études. fumeur de cigarette yi ñoom la chicha gën a euh, euh, toléré ci seen organisme que ñu ko musul def et li ci koor mooy tuxkatu cigarette rare mu tux chicha du ko laal chicha ñi ñoo ñi ñi faral di ko ñi nga xamante ne peut-être ils dañuy ëffori nii ma rirando et yi nga xam ci moom moo ci am ay pomme ay fraise genre yooyu xam naa peut la ñuy bëgg découvrir xool chicha par exemple chez les pays naar dañ koy tux parce que bu ñu demee ba bëgg a bàyyi tux cigarette la ñuy jël chicha def ci seen paume yu léger ñu koy tux pour jéem a bàyyi nicotine ak ak ak ak goudron bi maintenant comme Sénégal nag ñoom lu ñu ràbb rax ci que xale yi dañu dañu comprendre pour man information bi moo jàllul parce que dañu ci gis xale boo xam ne du tox cigarette mhm. xamul sax fu ñuy tox cigarette mais fu mu ànd ak xaritam yi génn dana toog tàllal tànk yi tox chicha mhm. snap boppam nangam wane ni man ci diapason bi te ñoom luñ ci xamul am na mélange vingt cinq pour cent de tabac ci chicha bi donc ñoom xamuñu ko pour ñoom rek goût bi xam nga yeneen yeneen moom ak te moo yées cigarette sax mhm. boo koy xool donc mu nga xam nga chicha xam naa bu baax a baax c'est-à-dire que mode bi la xale yi dañ see si mode ba la mooy si yenn restaurant yi yenn boîte man ko maa ngi yërëm ay xale yoo xam ne dañ ko àndaale plage quoi. Mhm. pour wane ne ñoom dañoo nekk. dañoo voilà dañoo bokk quoi. dama ni xool ci guddi gi nii yërëm leen lool parce que c'est-à-dire que comprendre ñu daal comprendre ñu comprendre ñu te li leen ciy dugal lépp nag li wolof di wax ni toppandoo sa maas ndiroo ko yemal mbagg mm-hmm, mm-hmm. c'est-à-dire que ña koy def la ñuy toppandoo fekk ña koy def ak ñoom yemuñu quoi mm-hmm, voilà parfois nga tasanteeg xale mu la man du ma tux cigarette ah saa rek laay laay tux fekk bee moo gën a garaaw ni ñu koy toppandoo xam nga euh, euh, je vois beaucoup de personnes yuy abusé ci chicha bi Sénégal dañuy da ngay gis chaque jour dem pour tux chicha alors que euh, ñi nga xamante ni ñoom la ñuy toppandoo duñ ko toxee comme ni ñu koy toxee nii H24 da gis ko nga xam ne ci salon de chicha yi yendu di chicha 8 organisme dina ko nangu ka ngay toppandoo xëy bu añee ba pare lay xëcc def tuuti bàyyiwaat noonu bu reeree ba pare defaat mais comme nous wala nga dem boîte di tux 22 heures ba 5 du matin chicha loolu benn yaram nangu xanaa gisoon nañ cuuboo ci loolu la rek en tout cas euh, c' bien de de de passer l' information pour jeunes surtout ñu bàyyi xel ci loolu xam ni euh, chicha moom moo raw cigarette ku sa papa tere tere cigarette ba nga ne doo ko laal parce que doomu jullit nga parce que nangam bu subaa nga dem baali ji wari ji yi jàppal ne ba ngay toog moo raw foofu li nga xam ne mooy cigarette. di surveiller seen doom yi que en général la plupart des euh, seen kër dañ koy jënd donc parents yi xale yi. Ah. <laughs> gis ku tuuna yaayam waaw wax nga dëgg parce que. au fait état bi ne comprenne pas wala sa yaay neex na de nga naan ko chocolat ñamal yaay yaay sa yaay ñam boobu. di xëcc la dem. Ah, donc je pense que bu ñu li nga xamante ni moom mooy actu santé bi dinañ xam ne que ni chicha non seulement c'est pas bon pour la santé day indi yenn feebar yu ci mel ni maladie cardiovasculaire <laughs> nee na mu ñaanal dem <laughs> Amina tëjal gaaw tëjal gaaw donc may remercier moo jaar si bopp bi salon Ndeye Ami nekk fële Liberté 4 numéro am di 77 653 86 67 moo jaar ci li nga xamante ni moom mooy bopp bi ñu remercier nag sama waa ASC bu baax a baax Alpha Gueye euh, Thierno donc euh, Zena tey li laa indi woon par rapport ak actu santé bi on se donne rendez-vous lundi incha allah